man sàkk fii kawni ibni abdullahi waaye tey lañ ko gën a soxla liñ ci dolli ci kàddu yu néew rek mooy fàttalante itam suñu diggante ak yéen xam ne ci ab tukki lañu nekkoon te ñu ngi ci yoon ngir dellu te sori nañ àdduna dañ fee tukki si rek te bañ fi tegee tànk ba nëg ni dañoo dox ngir dellu te sori nañ boo duggee bàqan yaa ngi fekk mu fees dell ak ay tablo ci diir bu gàtt ke leen ñoddi ba tëral leen foofu mu ngi lay waajal boo geesoo bàyyi ñaar fukki at ci sa ginnaaw war ngaa xam ne sab dox sori na rawatina boo bàyyi ñeen fukki at ci sa ginnaaw wala juróom fukki at war na laa wóor ne li nga dese ci sa kanam tollutul ak li nga bàyyi ci sa ginnaaw ci tukki nga nekk di dellu ana sab yóbbal ana sarica bi ngay yobale lan mo nek ci say loxo ndax sa jëf ju baax ji nek ci sa jor mo upp doole wala sa jëf ju bon ji nek ci sa loxo cham mo gëna bari xolal li nga ngab lan la yaangi dox jigu yu bar jëm ci sa bammel jigu yi du ay tank, waye ay bis la ak weer ak at laq nga at yu bari kon sab dox sori na léegi lan nga ngab nak yow jëm ak mom ci sa bir bammel lan la ndax ay xasanaat la wala ay sayiaat la xool ko nan ngay xoolee li nga ŋàbbu xoolal sa parcours xoolal fi nga jaar ba nga xàmmee ba tey ci say jëf ak ci say wax ak ci say jëflante subaa danga mën a xam lan nga ŋàbb ngir jëm ak moom ci sa bàmmeel su dee lu rafet la góor góorlul ngir mu yokk ndax fa nga jëm dara dafa doyut am na ñoo xam ne dundoon nañu téeméeri at ci kaw suuf tey am nañ juróomi téeméeri at ci biir suuf te ci seeni i jëf rek la ñuy dund kon jëm nga fu dara doyut kon loo rafet rafet njort ci sa jëf rek xeeb ko te a gën a góor góorlu loo ŋàbb ci sa càmmoñ ci sa jëf yu ñaaw xool ko ndax bari na walla bariwut lu mu néew néew bu ko xeeb faxas ko ci jéggulu sa borom bu dee sa digganteeg sa moroom fayal ay àqam loolu lu war lu mat a bàyyi xel la yaa ngi dox jëm ci sa bàmmeel xoolal yóbbul bi nga ŋàbb te war a tëdd ak moom ci sa bàmmeel jëf ju baax lay doon wala muy jëf ju bon wala muy lu baax ak lu bon fexeel ba li baax di yokk jamono bu nekk fexeel ba li bon di wàññi ko jamono bu nekk te bunt bu koy wàññi am nga ko muy jéggulu sa borom ak jéggulu sa moroom bunt bu koy yokk am nga ko ndax jëf yu baax yi dafa fettool ne feppi suuf yi nit ñu sa mbokkum julli sax dañ la ciy bindal aw yiw doj woo faxas ci kaw yoon sax dañ la ciy bindal aw yiw kon bis bu set ñu ngay fàggoo sa àdduna bu la itteele woon ngir nga fàggoo ni sa ëllëg bis bu set aw yiw ngay am ba ba jant yi so waaye sa ëllëgi àdduna nga xool xooloo sa ëllëgi àllëg ñu bari ci nit ñi seen ëllëgi àdduna la ñuy xool mooy seen avenir ci kanam lañu war a gën a am te amaguñ ko di njëkkante loo xam ne lépp fii la booy génn dëkk bi da ngay fekk yoon yi ñu def ko ay loo yu du jeex miire fii miire miire boo demee ba ba ci sorte bi nga mel ni ku bëgg a génn Touba da ngay fekk ay loo yu mag yoo xam ne ña ko moom ñi ngi ci seen i biir kër yoo xam ne lañ soxla lépp nga fa xalaatuñoo dem fee dëkk fa waaye dañuy dàq àdduna naan dana baaxee di jënd di miire di jënd di miire dana baaxee ca kanam dana baaxee di waajal ndax yow amoo waajtaayu biir suuf bi ngay waajal lii ndax nekkun di la waajalal ngir biir suuf sa ëllëgi àdduna amul solo xoolal sa ëllëgi ëllëg mooy la jëm ci sa biir bàmmeel liggéeyu miire miiree di di di waajal loolu loolu ñii fi nekk rek nga ko fi bàyyil du la topp mukk ci biir bàmmeel waajalal sa biir bàmmeel ku tedd ke dafa wax ne bàmmeel lu baaxoo xat la lu baaxoo tàng la lu lëndëm la lu tar la waaye sa jëf ju baax moo koy niit ba mu leer sa jëf ju baax moo koy yaatal sa jëf ju baax moo koy féexal kon tën miyaal sa bàmmeel investiral ci sa biir bàmmeel dawal fa ay jëf yu baax te loolu mi ngi juddoo ci li ngay jëflanteeg sa borom ci ay jaamu ko sàbbaal ak li ngay jëflanteeg sa moroom ci di leen dimbali ak di leen laabire ak di leen jariñ loo man te jëmmi yàlla tax bët boobu xippi ko xoolal liy yëwénal sa ëllëgi ëllëg muy sa bàmmeel te bañ a xool rek liy yokk sa kam ko mu tey ci li ci sa kanam dara yàggatut kenn ku ne ci noonu bu gees kenn ku ne ci noonu rek mën naa daal di wàññi léegi lu mat fukki nit ñoom xam ñoo xam ne daaw ñu ngi doon dund àndoon ñun àndoon ak ñun bis bii ak fu ñu mënoon nekk ci àdduna nga mën a wàññi ab lim tey boo xam ne tey ñi ngi ci biir suuf dugal nañ leen tey ci menn pax moo xam ne benn bunt la am te bañ leen ci dugal leen koo sakk ba tiim leen ba jal mu tiim leen ndax ëllëg dana la fi fekk xëppil sa bët ci liy xew suñ borom ko la bàyyi xel la te bis rek lay xaar du la ñàkk jël mukk ngir ne da ngay xale du la ñàkk jël mukk ngir ne da wir du la ñàkk jël sax ngir ne da ngaa baax ndax da ngay jaabu yàlla déedéet ni muy jële mag mi ni la lay jële yow xale bi ni muy jële ki ñàkk kàttan ba wéra di ni la lay jële yow mi dara jotut ni muy jële ku bon ki ni la lay faate yow mi koy jaama ko sàbbaal bu jotee ndax loolu ci coobareem rek la tege bis la ko soobal rek mu def nga gane àddina bis la koy soob rek mu jël si la yóbbu te ci sa jëf ngay tëdd ba keroog saa taxaw ci say jëf ngay fayalantey àq ci say jëf ngay jéggee siraat ngir tàbbi aljanna kon xam nga ne loolu loo ca def doyut loo ca def doyut asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu